ku ak man ak ku àndut ak man lan la may wàññi <laughs> waaw mais ñun réseau bi ñëwuñ fi pour ànd ak man parce que moomuma réseau bi ñun ñëpp a yem si réseau bi ñun ñëpp ay jàngalekat lañ ñun la ko président jox waati waa woon yii monsieur la maire nag di def liggéey boo xam ne bi liggéey bu rafet la moo ñu dalal te lum ñu dalale dafa am boo tànk bi parce que moom tey mii moo ma gën a légitime moo a gën a nekk affaire moo ma gën a légitime parce que moom dafa xeex ba gagné man nag dañ maa seppi rek ñoo nommé ma donc wax dëgg yàlla ñun lu ñu fi indi mooy fexe ba parti bi ñu gën a juboo ba fexe ba sénégalais yi euh, xam ne ñu ngi leen di liggéeyal te liggéey boobu aussi dañ si woo sénégalais yëpp même opposant yi bu buñ sañoon parce que élection ñëwagut élection présidentielle dëkk bi nañ ko defar bàyyi xaste bi bàyyi saaga bi donc wax dëgg yàlla euh, président Macky Sall loolu la ñuy sant bis bu nekk daf ñuy ne bu leen tontu ñun sax ñoo sob di tontu rek. daf ñu ne bu leen tontu moom wax ju ñaaw xamu ko président Macky Sall xamul xaxar xamul xaste xamut saaga te tere nañu ko c'est que des fois sa xol mooy métti rek parce que nag bu Youssouphe tontoo ñu ne mu ngi saaga mais lu Idrissa Seck wax baax na donc xam nga loolu aussi day poser problème bu jógee xas kilifa la première institution de ce pays xas ko te ku muy xas ki mais mu ngeeg njaboot. boo nekkee ay nit bu fekkee nit ku yiw nga booy wax ak kilifa da ngay xam ne kilifa googu même baykat bi bu mel ni abu Sow dafa yore njabootam donc réew xasteeg saaga yorut réew mën nañ di critiquer mais nag kàddu gi gën a rafet en tout cas ñun de euh, fii mu toll décidé nañu xaw ma kan mooy tontooti Idrissa Seck mais du doon ñun.